<laughs> loolu loolu loolu soo ko defee naa la délégation ñëw ci yow de. ah garaawul garaawul amul benn problème Régis. ko ko ko wala ma ko da bëgg ma yebal sama RG ñu ñu tourné radar ci yow. ay man te nga maa bàyyi man je blanc comme ne comme coton wala comme comme. ah sama sama sama RG yi dañoo garaaw de. <laughs> Oscar Sierra wala Idi Moubaye na ngeen def. koo ci wax rek baax na quoi maa lay ziar bu baax a baax a baax a baax di nuyu euh, suñu famille télé Sénégal quoi dama naan mm-hmm. télé Sénégal moom tim bi famille lañ quoi. Mm-hmm. donc maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax di rafetlu liggéey bi macha allah am na solo trop. donc euh, di jaajëfal suñu mbokk moom génn léegi vraiment intervention am na solo trop déglu nañ ko moom yegg macha mm-hmm. allah. Euh, di ñëw ci waxtaan wi rek. xam naa fi may commencé moom mooy euh, ñi nga xam ne demoon nañu pare gisanteeg euh, président Macky Sall. yow lan ñu leen di wooyee léegi. yow dèjà eh, yow ba ah? nga ba nga gisee ña nga xamante ne ñoo ñoom ñoo dem ndax yow sa xel dal na ca lañ fa doon waxtaanee ñoom ba nga gisee ña nga xam ne ñoom ñoo fa demoon teewal euh, candidat yooya dèjà. waaw man man avant avant li ma doon wax mooy ñoom seen dem gi. maanaam day mujjee nattax quoi ndax président Macky Sall souvent day day day day def loo xamante ne ni de boo xoolee bu baax bu fekkee xam nga président Macky Sall bu baax da nga xam ne lii. Mhm. ab scénario am la quoi moom mu toll dafa toll ci defar image am quoi xam nga am par rapport ak image yi nga xam ne moom la ko sénégalais xoolee moom moom mu ngi viser toujours au niveau de international. Mhm. bañ na ko ba bi muy taal suñ taal suñu avion consommé suñu kérosène pour wuti liggéey wuti ko biir Sénégal te avant dañu woon bu wàccee ci nguur gi biir Sénégal lay toog du génn di dem fenn. Hmm. tey ñu gis ko mu jël avion consommé suñu kérosène dem di wuti liggéey faneen kon kooku mu ngi defaat image am ci au niveau de international boo nga xamante ne nii bu wàccee ci nguur gi foofu la jëm comme ñu ko ñeneen ñëpp di defee donc hmm. kooku fi mu toll nii defar image am mooy toujours rek maanaam démb bi ñu duggee pale li ñu njëkk a def mooy jël benn photo posté ko ci Facebook posté ko ci réseaux sociaux ñëpp di ko partagé ñu xam ni kat opposition opposition sénégalais bi dem na rencontre ak président Macky Sall pour ñu waxtaane nangam ak nangam ak nangam. Mhm. maanaam toujours mu ngi defar image am quoi xam nga tey jii nii bu bu ñu yeggee ci élection yi président Macky Sall la def ay njuuj njaajam ba ni Amadou Ba moo gagné nangam pour cent bu boobaa moom tamit au niveau de international dina ni ah maanaam keroog bi nga xamante ne nii opposition sénégalais bi ñëwoon nañu nangam waxtaan nañu. donc comme dañoo waxtaanoon fi mu toll nii dañoo tënku woon ci ay mbir yoo xamante ne nii lii la ñu euh, waxtaane woon lii la ñu comprendre lii la ñu d'accord tey jii nii ngañaay am na kenn mënu contester quoi. Mhm. te tey jii maanaam ñoom seen dem bi bu ñu toogee def seen évaluation xool ba xam lan lañ ci ñàkk wala lan lañ ci seen lan lañ ci perte seen crédibilité lañ ci perte ndax ba ñu waxtaanee seen ndaje par par exemple daf na leen wax daf leen wax ni leen dinaa leen tontu. bi mu demee ba mu leen di doon lan la leen wax dañ leen du loo xamante ne conseil constitutionnel dafa dogal pare man man moo ci dara. Mm-hmm. effectivement euh, réseau quelques difficultés quand même euh, par rapport au réseau waaye xam naa dina jekkaat léegi léegi léegi léegi aloo allo Oscar allo Oscar. waaw allo euh, allo maa ngi koy dégg de pourtant ah kon rëcc na xam naa dina ñëw àggali la mu la mu doon wax moom jàngat bu njëkk ba mu jot a def mooy euh, président Macky Sall da doon jéem a euh, la nga xamante ne mooy image am waaw xam naa réseau bi mooy déconné quoi. ah waaw gis nga de jafe-jafe yooyu moom xam naa léegi mu gën a jàkk vraiment ñu ngi ciy def lépp lu ñu mën. aca yow yow yow nga kon danga jàpp ne président moom daanaka ñooñu moom président dafa daf leen a jëfandikoo rek ngir gën a defar taxawaayam daf daf daf leen a utiliser te nekkul ne c'est pas la première fois président Macky Sall di utiliser opposition sénégalaise bi saa bu ñu soxla maanaam moom ak lenn ci opposants yi maanaam moom toujours day def comme comme benn benn muus rek boo xam ne dama ko bëgg a fiir rek nga xool li mu bëgg a mu bëgg mu gën a bëgg muy jël moom nga moom nga koy tegal mu daw maanaam biñ Sénégal jëlee coupe d'Afrique bi daf leen a daf leen utiliser woon ci côté boobu bi ñu utiliser ba pare sànni leen te lu lu jiite loolu bi nga xamante ne ni keroog bi nga xam ne Covid 19 dugg na Sénégal daf leen a utiliser keroog Ousmane tombe nañ ci dafa tombe dafa tombe ci piège bi mais moom ba mu tombee dañu ah c'est la première c'est la dernière fois may jàkkaarloote ak jëmm ji loolu dañuy def prestation de serment comme kon déjà ko comprendre nañ hmm. waaye yow mënoo mu utiliser la foofu beneen bi ñëwaat muy euh, euh, bi Sénégal jëlee coupe bi mu utiliser waat foofu pour pour image am toujours beneen troisième fois bi tey jii nii mu yow xam nga leer na ne conseil constitutionnel moom joxe na lii am ba pare yow leer na ne lii mënatul dellu ginnaaw maanaam solution bi nekkul ne président Macky Sall moom moo leen jox solution bi ba ñuy dem lan la ñu bëggoon moo li ñu bëggoon mooy ñëpp a yem ci Sénégal maanaam toujours képp koo xamante ne nii sénégalais yi doyloo nañ la pour nga nekk candidat nga nekk candidat loolu lan moo koy wane mooy dañ la dañ laa yebal pour nga wuti ji ay parrain. Mm-hmm. ah déet waay réseau oh, mm-hmm, mm-hmm. dafa am koo xam ne moom moo la bëgg rek rekkale kooku moom moo la rekkale yoru solution bi solution bi kan moo ko yor da ngeen dem toog ngeen waxtaan ci seen biir ñaata ngeen. quarante et quelque wala vingt vingt vingt et quelque ngeen. Mhm. tey jii da ngeen di booloo ngeen xool yéen li ngeen bëgg seen bëgg-bëgg lan la mooy li nga xam te moo leen naxari mooy li ñu leen recalé maanaam loolu lan noo koy maye il fallait ngeen booloo soutenir benn candidat boo xamante ne daf leen leer ne kii bu gañee justice day moom boppam. Mhm. justice bés bu moomee boppam képp koo xamante ne ce dossier dafa légal. Mhm. boo demee conseil constitutionnel boo ko déposé par force li nga fekkee Sénégal day am deux mille koo xamante ne nii yow dañ la laaj ñu joxe nga ko di nga nekk candidat donc candidat boobu noonu fu ñu toll nii da ngeen dem waxtaan bu leen waxtaanee ngeen jël li nga xam te moom ngeen d'accord ngeen tënk ko ci dem vingt ñoo leen ngeen def cortège ngeen dem bis ñoom. Mm-hmm. kenn koo dem bis ñoom nga ne ko lii de moom moom la ñu bëgg képp koo xamante ne nii d'accord na ci li ngeen bëgg tam ngeen xoolaat boobu na leer na leen doy na leen kooku ngeen àndal nekk ci ginnaaw kooku bis bu gënee réew mi bés bu gañee réew mi ñëpp dinañu yem bu élection amaatee amul duñu rakale Bougane duñu rakale keneen ak keneen ak keneen ak keneen képp koo xam te ne dem nga matal liñ la wax boobaa yow di nga doon candidat nga dugg Sénégalais yi waxtaan ak ñoom ñëpp a yem RTS ñëpp a yem fa ñëpp di fa jàlle bu Bougane defee benn acte RTS jàlle la ko bu kaneen defee benn acte RTS jàlle la ko ñëpp yem ci Sénégal bu boobaa yéen di ngeen mën a doon benn réew boo xamante ne bu élection amee man nii sax bu fekkente ni am naa lépp trente cinq ans su ma demee yóbbu samay dossier conseil constitutionnel bu ko càmbaree xam ni kii kat matal na boobaa day nekk day nekk candidat te bu nekkee candidat day dugg ci waa réew mi laaj réew mi bés bu ko waa réew mi joxee réew mi xam ni kii moom mooy président de la république mais président moo xam te ne mooy tànn ñu muy àndal ak ñu mu dul àndal nga dem naan ya da ngay waxtaan ak moom yaa ngi yàq sa essence yaa ngi yàq sa gasoil yaa ngi yàq sa temps eh, yaa ngi yàq sa image aussi eh, te képp koo xamante ne dem na ngay waxtaan ak président koo xamante ne yow 30 jours moo ko dese lan man koo xamante ne ni moom décret fi mu toll nii dafa gën a ñàkk doole mën na tul dara conseil constitutionnel wax na yow doo dem di jikki ci leneen mais mu utiliser man ñi nga xamante ne nii du ma bokk du ma candidat du ma laleen. Oscar ku ma yebaloon ci président Moussa dama nalaan kooku lan la yor. kii nga xamante ne moom ñu ngi yor depuis douze ans defal ma ko ndax ndax dama koy defal bi mu desee trente jours. ko def vas-y non. Euh, a wax maanaam yow tam dalal naa ko bokk xeer xeer yaa ngi daal de xeer yi sax ñooy accès ba ci man euh, li ma la bëgg laaj mooy euh, léegi ñoom mbëbët yi nga xam ne yóbbu nañ ko fa wax nga ci wax nga ci lépp daanaka daanaka analyser nga fépp waaye bosu Bassirou Diomaye ak Karim Wade ak Ousmane Sonko daanaka sax daanaka na la leen président tontu sax boo sa joomaay moo ca gën a sedd daf ne ñoom na ay avocat wu joomaay def la leen war moom ci boppam la mu war itam dana ko def maanaam dana ñaan ña nga xamante ne ñoom ñoo war a opposé wu xëy na ci loolu muy waa parquet ba su demaan ba ñëwee ñu bañ cee opposé wu loolu itam ndax xel xaw xaw xalu ca xaw caa dal euh, par rapport a position boobu. Ah, xam nga xam nga xam nga bi ñu ko waxee